coowal mandat ken du ma ci dégg. Tu mhm. ma ko waxoon. ñu def ci suñu institution suñu constitution le mandat est de cinq ans renouvelable une fois nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Mhm. mu taxaw fait ci àdduna foo xam ne duñ ko ko laaj sax moom Macky fu Nan taxaw. Mhm. man président exemple lañ coowal mandat kenn du ma ci dégg. du euh, ngeen ma falaatee deux mille sama second et dernier mandat bind ko ci livre mais tey jii ay ay ay partisans ñoo ne kàddoom le amul solo. est-ce que yéen a yëg fu ma mm. bu baax. maanaam ñun waxuñu xam ma ñun waxuñu Macky Sall kàddoom amul solo de. Mm-hmm. li dangereux mooy ay njabootam. waa Benno Bokk Yaakaar APR ñoom Alliance pour la République ñoo ne Macky Sall kàddoom googu amul solo <laughs> waa léegi comment nag yéen ngeen bëgg kilifa goo xam ne njabootu boppam njabootu boppam xam nga balaa moo njabootee réew mi dafa am njabootu boppam. Mm-hmm. njabootu boppam ñoo ne kàddoom amul solo.

moo tax léegi ñu naan as gor bu njëkk dañ naan gor ñi mais néew di gor yi néew moo tax ñu naan as ngor. as mooy lu tuuti. moo tax man la as ndox feeñal na sobe waaye setalu ko waratuñu wax as gor dañoo war a wax gor ñi. kon gor dëgg dañ koo donn mooy respect ci kàddu bu njëkk mayee nañ jànq joo xam ne ndeysaan fa tabaar fa kàll doon koy mayee mu jooy. daw laxasu mm-hmm. naan nopp bëgguma kii ñu ne ko sama kàddu bàyyam na ko mani sama kàddu daf maa raw. wax nag sama nawle ba noppi. Mm-hmm. te du ma war sama nawle. papa kàddu dafa nekk waxuma sax en dehors diine balaa ñuy wax waxu diine sax ñun kàddu dafa nekk suñuy valeur même ceddo yi dañoo amoon kàddu. rawatina kàddum njiitum réew. ndokk yàlla de baax ndokk am na am na waa ju baax ju la siyaare ci sa pertinent waa ji nee na mi ngi yàlla. na xa nee na xam-xam rafet xam fit yu rafet na. set na sell na. dafay euh, mu ngi naan ma léegi fan su ko naa la ne. waaw déedéet man yee xanaa sama ginnaaw xanaa bu ma rombee. ñoo bokk lu ne. donc loolu dem fa nu nekkoon. Mhm, mooy kon tey suñ nee kàddu Macky Sall wax na na na yi wàññeeku. Mhm. prix yi gën a yokku. Mhm. ah mais ba pare ñu ne dañu war a respecter kàddu président kàddoom. ñamu àndal ñoo ne ñu kàddoom jar ta jàpp. ndax ñoo ne tey Macky sàll kat boo waxoon na ne du def troisième mandat waaye ñun dañ koy forcer par force mu def ko ndax kàddoom du constitution. ñu xamal leen ni nag réew mi kàddu daf fee ëpp war a ëpp doole constitution. ndax léegi la signature xew. bu njëkk mag ñi dañ daan xas-xas loo. Lat Joor mu Lat Joor bu dul woon fonk kàddoom munoon naa mucc ci tubaab bi rey ko. ndax sëriñ bu mag mi nee na ko toogal ma defal la li gën. gisuma nga dem mu ne ko mu ne ko mu ne ko kajoor ak bawol yëpp a may déglu sama kàddu raw. que fekkee woo yee ak yi mën naa ne. say tëstën war naa ko. noppam ak boroom. soxlawul nga fekkee jamono yonent yàlla ku dar pour xam li xew. xam nga dëgg de na def nag mu wéyal. donc tey suñu jékkee jékki naan ñu na nañu respecté cadre président parce que waxoon na na prix yokk loolu manipulation la. Macky Sall xam na ni fi ak 2024 Macky Sall mënu fay def lu baax pour askan wi. te amul temps temps mo amul manam Macky Sall mën lu ñu fi dik imaginez ce pays est une farce adjaratu ce pays est un pays de malentendu Macky Sall war naa def tourner tuddee ko tourner économique di dem ci région yi di len dik di len digaat ñoo xam da nga len digone pendant dix ans li ñu leen di nga wëlba mais il nous manipule mais il insulte notre intelligence mais ni est-ce que moo tax ma pouvoir est-ce que Nekul day day wàññi non damay laaj quoi est-ce que Nekul Ngour day wàññi parce que Macky Sall niveau bi mu nekk ñun dañ koo dépassé di dem. Mhm. kon tey na askan que nous a de seen seen takka takkaay gën a de seen biir bir, a ñemewaat xiif ndax li des ci li des fi Macky Sall dafi toog xiif la ñuy nekkee loolu bi yeboo ñu ñeme ko na mel ni que xare Badar saxaaba yi nañ doon woré di xaré nañ seen ni des ci di fi ci koor yu dañuy suñu ndax la fi fait partie les 25 pays les plus pauvres du monde ou bien les 20 pays et les plus corrompus et Dakar est la plus ville la la plus chère ville du monde. de l'Afrique Joy. ñu nekk Dakar ñu ngi joy ñi nga xamni au fond du Sénégal. allah akbar est-ce que yeen du ngeen tok ngeen def ngeen def une réflexion ngeen bàyyi xel comme ñun ñu nekk Dakar ñoy def gobar jass mm-hmm. wa kon ñu nekk bir bir Tamba ci bir wala saboda la fa or xol fa or bay balé fa or bay génné ajartu. Mm. ña ngay dé akif saboda la ta or ba or ba fay balé réew mu am or ñu tok ci or fu mu toll ñu ngi bëgg exploser sen ben armée ñom wa saboda la parce que nee nañ dañ faa gis or. <laughs> armée fu néew teud may wax ak yow néew sax mu ci nguuru Macky Sall man ngay waxal. yàlla nañu yàlla musal. barki démb armeer néew yi mucc ci nguuru Macky Sall. armeeru bétuwaar bi dooruñu fa ay lacrymogène. dem ñu tàggoog moom yàlla baax na lañ a atteint a montré ni moom lii la mën répression na pekk ñàngal mais développement ak plan émergent kañ nga gëj a dégg ñu wax waxati ko Sénégal émergent déggati nga ñu wax ko. Mm. ñoom pouvoir bi sax waxatuñu ko 2019 ko gëj a wax. Mm. parce xam nañ ils ont xam nañ émergence amu fi. te réew xanaa xamoo màkk boo fa sàccee pour pour pour loo dundee duñ dagg sa loxo. Mm-hmm. xanaa xamoo loolu. ñàkk sa sa mën na maa wax mën na mën na maa seede aaya lay indi moom dama ko bëgg. ndax moom aaya lay indi moom. waaw mm-hmm. moom aaya lay indil moom tegal la doo doo doo waxaat. sama papa mën na maa tëgg sa part sous son contrôle. Mm-hmm. màkk boo fa sàccee ñu def ay investigation xam ne kii xiifa tax mu sàcc kenn du dagg loxoom. xam nga kan la muy waxal. autorité ba. Omar ibnu Xataab. ndokk mm. xëy bi bi mu yore kii ay xilaafa yonte bi ndokk nga xam ne bi ministre yëpp seen conseil ministre umra umra ak aj la woon. Mm. ndax da lay bàyyi temps nga liggéey. Uh-huh. bu waaye ku ne ma laaj ne mu ne waa yow diw noo ma teg sa population yow côté juge euh, juge noo def mu a diw de jàpp naa ko tëj naa ko rey naa ko mu a ko yee eh, nga ne leen ku mun ne ko lu tax nga ko tëj mun ne ko birti bi ñu la wootoon lu tax jox ko moom tax muy sàcc boo fi dóorati nit mu duma la est-ce que même Omar ibn Khattab kon nekkati biti bi am na loo xam ne bi boo ci doxoon gor ñi ko moom kenn du jël alal jàmbur. dëgg la kooku amirul muminin la. waaw mooy njiital jullit ñi. moo tax Serigne Touba ak Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xayrul xalq moo njëkk a nekk un chef de l'État. xanaa xamoo ni politique bii ñuy bonal. yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam il était un politicien. il était un chef de l'État. mooy seen il dirigeait un gouvernement. tey bi mu fi jógee ñoom Seydina Omar ñëw eggali mission bi Seydina Omar. ci nguur gu maandu da dox dafa dox ba bis je parle sous le contrôle de mm-hmm. dafa dox ba bis gis kenn ci njabootu makka ñi mu jiite mu xiif mm-hmm. di togg doom yaa ngay jooy ndox di baxal ndox ndox dafa jooy moom Seydina Omar mm-hmm. jël responsabilité ngàdd ko ci loolu xam nee na Màkka ak zone bi mu jiite képp ko fa lekkul responsabilité la waaw nga jiite réew mi. Omar Ngale mi même pas intal la ko wàcceel si suba sa. ba pare yanul indil koko, ko. yanul koko indil koko, ko. Mm. lan la ñu jàngale foofu. ci yàlla oh, mooy njiit yamale mooy njiit da ngaa war am da lu askan wi di dund ci lu métti sa responsabilité la. Mm. parce que yaa laaj ñu jox la seen baat pour nga ñoŋalal leen seen dundin. waaye fii loo fi gis koo euh, étudiant wala mu nekk commerçant wala lu mën bokk ci benn parti politique yàlla dogal parti ba nekk gañe yàlla dogal ñun fan leen nga gis ko sa suba sama romb la 4 4 bu ya 80. léegi ko rek nga baal nga baal damay damay siif damay siif. yaa yaay xam nga maa comme Sénégal ñëpp xam ne Oustaz ngi nii day waaraate. waaw macha allah. benn benn trasu terrain aw ko neel benn. Mhm. ñun amu kenn am ko fa am terrain. Mhm. te ñoom ñëpp am nañu terrain. Mhm. bourse familiale. ñu ngi ko jox lan léegi dootu leen cinq mille cinquante mille la. gis ñu am salaire ba tey ñu am salaire ñu am bourse familiale deux cent mille. ban dëkk la ñu nekk. jël ay oto yu pakk ne jox lenn ci sëriñ si ak huit huit ak lan deux mille litres essence ak salaire te da doo jàngale dara ci daaray alxuraan yi cay yow mal xam ëllëg. ku fi bàyyi jàngalu yu Seydina Muhammad ak seen maam yi kon kenn Sëriñ Tuubaa. oustaz nga ne safara si nu mu uula. ay la ilaha. Cheikhul Khadim Serigne Touba. Mhm. sunu Serigne dafa wax wax ju rëy. Mhm. mu ne ku jëndee ku jaay sa leer jënd ko lëndëm mais Serigne Touba xam ko ku muy waxal. Mhm. njaboote boppam lu njëkk a waxal. soo génn ca soo génn ca mbedd ma ndax doo am lu doo lu toll ko sa maama sëñ Bamba. ngay taalibe sëñ Bamba. ñàkk koy taalibe ñàkk ko foo dëkk ñàkk ñoo nekkal. addina la fekk nga ne yàcc gis ñu teg ko xam ay medd lañu. kon ka jàng sa leer. salaamaaleykum wa rahmatullah donc ma ñëw rebondir foofu muy waxee ci àddina dama déglu imaam Alioune Badara ndaw mu ne amul benn nitu diine wala yonant bu mu a ànd ak nguuru àdduna bàyyi askanam. may wax ak yéen. bu waat desee woo ma. nii la ko waxee ñëpp di dégg te li mu wax dangay dem introsé ci histoire nga dem Seydina Omar amirul muminin ya chaque jour.

Mm-hmm. da ngay dem nga jàng nga nekk enseignant wala nga nekk euh, baara ñinde wala nga loo mën a ne. Mm-hmm. nga ñëw de porté bénévolement ñëw ne damay ñëw ci assemblée bi pour waxal askan wi. Mm-hmm. kenn du la fay da ngaa am métier. amoo benn privilège. sunu réew yi nag moom politique métier la. profession la. moo waral ngay gis ni askan wi dañuy gën di ndóol ñoom politiciens yi di gën di alam am alal te bàyyi nag gàcce nag gàcce weesuwul. réew mi nga dëkk manqué ñi nga jiite manqué lépp yow nga am lépp. déggoo ma de. nga ne ko ñi nga jiite. am na ko nekk ba Milano manqué lépp yow nga am lépp. yàlla yàlla guddal fanam Milano. ba la loolu laa doon wax léegi avec la magie de la technologie le monde est un village lii Macky mën na ko arrêté. mën na noo wax nit ñi seen xalaat. déedéet mën na noo nit ñi wax wax li ñu gëm. déedéet maa ngi fii toog waa Milan di ma déglu ñoom ñuy wax di ma jokkalante. ñu naan dañuy nëbb nit ñi dëgg. waaye bul fàtte dañoo mën a nëbb nit ñi dëgg. bul fàtte ndaanaan bi lañ la invité. nekk la chaîne du peuple. donc yaa ak yow maa ngi yéen a ko injustice moo sos télé bii. dëgg la te injustice dina sos lu ne ci réew mi. déggoo xanaa xamoo am na ñu bàyyi woon ko fa mu ne woon a gënoon. moo gënoon seen. <laughs> yàlla na yàlla guddal seen fan. donc yàlla nee na. Euh. <laughs> du ma bind ci fanweer rey ci fukk ak juróom. dëgg la amet ñu bàyyi woon ko fam ne woon moo gënoon ci ñoom. moo gënoon rafet waaye bëgg ko bundu xataal noot. Hmm. tey maa ngi ni ñëw di àddu mel ni bool bu daanu. mënuñu ci dara. waaw yaa ngi kese kese ngi nag. maa ngi def lu ma neex. di jeex jeex seen kon soo nekkee am njiitum réew soo nekkee am njiitum réew ña nga jiite ñàkk lépp yow nga am lépp yaag say ñoñ te avant nga leen di jiite da nga doon miskin nga woon daan luye askan woowu bu ñu lottee jaadu na nag kon bu ñu nee émergence émergence bi ñoom ñiy exercer pouvoir bi ñoo am émergence mais askan wi amuñu émergence beneen bi ci toog ki tax nga gën koo warul woon a gën sant ko war na la. waaye nag dañu mépriser nag ñu kaso mooy suñu kër. L'État est fort. Mhm. Gouvernement de combat. Combat pour les denrées de première nécessité ou bien combat pour traquer les opposants. boo le gouvernement de combat bi ñu fi dañ combat lan la mais boo boo doxalee. Mhm. gis nga ni combat bi pour attaquer ses opposants là, loolu lañ gën a def. boo xoolee ñu ngi ñu de combattre le soleil nee na le président presse le gouvernement mu ngi wax gouvernement bi pour ñu. góorgóorlu naa konaate. Mhm. Balla mu ngi woote ca Paris. du ko

pour un parti politique dimanche ma seede kii xibaaram doyu ma bukki doyu ma seede ci bëy bu feebar maay li ngay def dama ko yor doxalal dara balaa ñuy dem ci deuxième partie émission bi waaw ah. ah bàyyi leen sama confrère yéen ñaan nii ngeen di jokkalante am njaay joxal jóob nit ñu bëgg a def réew mi ëpp dëgg moom ak ñëpp te dëgg yàllaa ko moom fi may ñëwee daaneel Aïcha moy que Macky Sall kaddom ken mënu ko fonk ndax njabotam fonk nuko kon suñu nee wañi nañ wañi wuñu daf ñuy deggal rek kaddom du luñuy ñuy mm. ndax lu ñu mësa wax 2012 ba tay defu ko. Mm. kon kaddu Macky Sall du luñuy ñuy ndax njabotam ñoo ñuko wax. moy waxna waye waxam taxawul. Mm-hmm. ñun li bëgg lañu def te kilifa go nek sa biir kër nak te mëno fa am waaw mëno fa am kaddu kilifa gogu ah man kilifa gogu man damay introsé man ba faaso kilifa la te biir APR ci bopam ngay gis nit yo xamanteni ñoy taxaw diko diko ne li nga wax. sa kàddu la ne waaye yow la concerné ñun lu ñu bëgg a def la ñuy def mooy da ngay toogaat fi au delà de 2024 kon kàddu Macky Sall mënuñ ko mënuñ ko téye beneen bi stop. Mhm. ñu ne dañuy wàccee mille ñaata jeunes la ñu wax la ñuy kii. mille jeunes mille jeunes. xam nga déjà loolu un état qui ment son peuple où est les où se trouvent les musées ku ko gis. laaj ko na mu ay ande déedéet bañ sax ñu woo parce que kii tamit daa laaj daa laaj rek aji bu sumaare daa laaj rek. ah moytu la les yi damay ragal boo fi génnee ñu woo. ah nañ dem rek ndax ñun moom bu ñu demee kaso dem fu ñu miin li ñuy dund moo raw kaso. man de moo demee kaso dem fu ma miin li ma manqué ëpp li ma amut. Maadu waaw maay wax kaso la ñuy dund damay xale bu ndaw am ay compétence waaye te nga xëy sañ sama rafet nii tamit def sa koppati. sa sa nuru woo ko ñàkk de foo fàtte sag. sagu sénégalais. sa laa ilaaha illallaah ak ñu bëri sag nag. sa damay sagu de laa ilaaha réew mu man ilaaha yow kii wax dëgg yow li may wax nii ku koy di am man li nga jot am sax daanaka daanaka yow. waaye yow bëreetoo fu mu nekk nii looy dunde man je suis un chef d'entreprise nag. Mm. Euh, depuis man dama mos a jéem moom sama bopp. def nga lu rafet ndax bëgguma di wax ci sama bopp. Mm. dama bëgg dama gës ba gësal man mii la mbër yi la l'Oeil du Tigre njëkk ñëw sama koñ defal ma li nga xam ne mooy mbër ak métier. Mm-hmm. APEX ba ma dëkk ba ma gis ni zone constru zone à construire la ba ma njëkkee ñëw foofu tabax kër sunu kër papa ba pare mm-hmm. damaa ibbi kenkaayri ca ca ca ca ca place bi. 2012 mm-hmm. nekk ca di liggéey. nekk ca di liggéey di jaay ciment. télé ñëw foofu ma wane une exemple di bëre di daan di liggéey. wala leen ni làmb du métier. loolu yëpp loo gisee ma def ko dama bëgg di moom sama bopp. damaa bëgg may am sama liberté d'expression di wax te ku ñu ëmbal sa kersa ëmbal ëmbal sa sunguf ëmbal na sa kersa. waaw ñu jógee ci loolu ma xool zone bi nekk zone en construit waaye am sécurité Mm-hmm. ma créé un comité de vigilance avec les lettres des délégués de quartier maa ngi nuyu notable cité APIX yépp mm-hmm. ñu jappalé ma ñu tek comme amuñu fa police amuñu gendarmerie ben gendarmerie moo nekk soka Sokabeg la nek dafa sori. Mm-hmm. té zone à zone buy seen bu bess day bari day bari ñu sant euh, Touré nangam moy ñooñ ñi jël alal jam ñoo nga xamné ne li leen yàlla jox dañ ko xép bay sàkk ci wërsëgu jambu dafa xawona bari ñu créé comité ne pourquoi pas dinañu def dinañ dina nek dinañ créé dinañ ar suñu réew dëkk waaye dinañ am astout luñu yobbu ñu kër